jeexal lamb yooyu yëpp tey ñu war cee ñëw xam nga tey jii combat boobu ko su bakari sax boo amoon loo ci wax amateur lamb yi lay si daan ak Sénégal yëpp la nga leen wax. Alaaji Faram su ma dee wax ci Baye Mandione dama lay wax ne la Baye Mandione du tàgg ne day mer ci biir géew merul ci biir géew Baye Mandione jàppam moo yàggut Baye Mandione day xaddi ci biir géew xaddi ak mer dafa ute. ndax boo meree da ngay gën a dëgëral sa bopp toog ci say tànk daas say loxo ne tayoo tey duma daanu loolu ci merum sport la bokk mais xaddi mooy naan nañ fi jóge mat bu ma daanoo yàlla moo ko dogal su ma la daanee yàllaa ko dogal loolu du mentalité sportive moo tax ma ne na bàyyi ma tey avantage bi nga xam ne nii tey làmb ji ñëpp nag avantage yi Bébé Diène lañ ko jox man leen déedéet Bébé Diène moomu leen avantage ci làmb ji du bébé jéenu mbapat déedéet du combat bi buy bëree keneen mën nañu wax bébé jéen bi doon mbappat mu ngi mii mais tey daa am combat boo xam ne baa Baba Ndione dafa war a ibbi bëtam xool nan la war a doxalee ba komba bi demee noonu par la force ndax ki muy bëreel néewul kattan gone la mën na bëre yooyu lépp léppañ ci moom mais làmb bi du làmbu mille clé du làmb juróomi clé làmb benn kële la. Baye hmm? Mandione làmb bi làmb barrière la ci moom. du làmb kële pour Baye Mandione du làmb ne damaa mën a bëre fa ma woon a bëre munul ne du làmb kële ci moom. Bébé Diène làmb ji du làmb ay kële làmb ñaari kële la pas plus. dàq ci kaw jëli ci suuf wala dàq ci suuf jële ci kaw. Hmm. looloo fi mën a nekk seen diggante ñoom ñaar kon tey Baye Mandione dégg nañ ci ay déclaration gis nga mbër bu naree daanu. wala muy sentir ne bëgg naa suma daanoo nit ñi yërëm. ne waa mhm. caaroy dañ maa waa caaroy dañ maa seetaan dañ maa lii gi yooyu yëpp xeetum tactique tapet la rek ci wàllum bëre dama koy waxaat saa ne. Mhm. génne sama kër bëre ji nga jàppale ak ñàkk jàppale bëre laa man bëre laay def mooy sama liggéey damay dem bëre su ma daanee daal di wax li may wax bu ma mais munoo taxaw yow avant combat nga bëgg taxaw expliquer problème yi yëpp té nga wara am concentration sportif moom moy lan on s'en fout ku la jàppale ku la jàppale wul entraîner moo la war na nelaw yeewu préparer sa game plan combat nga ñëw def li ngay def té lamb ji wax naa Bami barrière la ci am Bébé Diène na dégg bu baax li may wax lamb ji Bami barrière la ci am taxaw ne waru daanu bu bébé juumee ma daan ko moy goné moy wut buy juum ma koy daan ndax dañoo war a giite ngaas ci xeex man la buñ giite ngaasee ci xeex du baax ci bébé jéen du baax déedéet kon yow xeex bu sax ba ñuy xeex ci biir géew ba am njaay joxal jóg googu nga ne yow buggoo ko ci bébé jéen mu ko bébé mu xeex ak gàkku xaw ma lu tudd xaw ma mm-hmm. façon bi bébé analyser baa ci contre Gris Bordeaux baa ci contre ak même orientation gàkku xeexut bébé jën xeexut damay waxaat saa su ne moo tax ma ne bébé jën xeex des koy limité sa fort donc koy utiliser forum ci combat bi Kousu Bakary fofu la cofee Kousu Jabong mu ci lolu nga wax non ci la cofee dugg Kousu Jabong dégg lu Bakary Sakho kum ci diggante bébé jën ak Baye Mandione lo ci wax ci loolu waaw Fadam ehm, xam nga ñaari ñaari foog naa su ma su ma juumul bàyyi ma ñoon pied droit lay teg su ma juumul bébé jën di teg pied gauche donc ñoom ñaar seen xeex day dañuy gisante donc bàyyi ma ñoon moo ko moo ko gën a njool mhm. nekkoon moom suma ma fekkoon maa koy indi day bëreeg latéral day bëreeg latéral parce que Baye Mandione droite bi moom lay moom moom lay teg te moom lay xeexe bi muy jiital loxo ba loxo ba ca lay xeexee loxo ba si kanam lay xeexee su mm. jàpp demee ba jàpp na loxo droite bi mooy jàpp mm-hmm. loxo la waaw Bébé Diène moo koy conseillé si combat bi Bébé hmm. na ñëw indi xeex te bu mu dëggu si moom na ñëw jàpp kon loo bëgg a na ñëw naxante si na ñëw naxante si combat boobu hmm. combat piège la combat piège la nu nekkee combat piège ko ko si jabon parce que ñu bari ñu ngi fone mbapat la mais mun na ko mun na ko mun na ko daan mais daal Euh, na na ñëw na ko jox cër na jox doon cër bu mat sëkk mu ñëw indil ko xeex te xeex bu mu dëggu si moom na ñëw jàppanteeg moom bàyyi mu ñor su ma bàyyi mu ñor nag moom xeex la war a indi si combat bi mais xeex bu sax na et puis mm-hmm. mu concentré

ñëwee dafa wara a ñëw xeex. mais xeex bi nan lay xexé xeex bi day ñëw waaw non direct at crochet. direct crochet direct crochet déplacement. mais dama gis dama gis Bébé Diène songukat la. waaw te su la songi ci tank du fa taxaw. dalay songu bëtt la jargandaloo ak yow dem yoonam. léegi léegi léegi Baye Mandione Baye Mandione moom dafa war a maintenir distance bi parce que moo ko ëpp cër xam nga maintenir distance bi di xeex ak direct ak crochet Bébé Diène Bébé Diène combat rapproché moo ko moo ko arrangé lever garde bi nag na lever garde bi Bakary Bakary dégg nga lu ko si jabong wax fi mu dugg waaw Bébé Diène combat distance moo ko arrangé du combat rapproché Baaba Ndione mu ngëbee rek ngëb na bu jàppee jàpp na xanaa nga daan ko ci jàpp daan ko ci jàpp buñ gis nag erreur Baaba Ndione contre contre euh, Zarko mais contre Zarko Baaba Ndione dafa bëri ci ndax Zarko dafa ñëw ci géew bi merloo Baaba Ndione te loolu ci mer googu loolu mu merloo baax bi ngeen jël ay avantage waaw ba lim am mu am ko di moo moo tax nag ma lay wax ne la sportivement parler bu ñu ko tegee ci sportif gis nga nit saa boo génnee ñu duma la wala saa boo bëree ñu daan la da ngay dem ba toll benn niveau boo xam ne daanu waxatoo ci dara maanaam da ngay xoolaat yaay kan daa mi joon ci guddi yooyu la nekk jamono ji looloo waral ay déclaration tegale bébé Diène li ko ci jabong wax gis nga respect bi nga xam ne nii tey bébé war na koo jox Bambilor xam nga moom mooy tàkkusaan moo ñu boole te tàkkusaan bi ñu boole du tàkkusaanu gittanaas du tàkkusaanu guerre guerru ma ak yow loolu la ñuy wax respect ci biir respect boo xeexee mu juwa mu juumaloo ak say duma daama soo bëree ma tagal la barrière daan la ci sa kaw bëree Bébé Diène loolu la war a def ci làmb ji pas plus du jihaar jihaarut warul dem di jihaar ak Baye Mandione du question wu non damaa ragal a jihaar non foo mbëri teg seen orgueil yi ci suuf xam na làmb des koy préparé boo amee ku mel ni Baye Mandione wara a bëree ak moom carrément da ngay gis ne kii daanoog ñàkk daanu dara safu ko ci toll na foo xam ne da leen làmb sama liggéey la kon as tuut boo ci bàyyiwul xel mën na laa daan facilement Bébé Diène mën naa tenter action sax ba ñu naan daan na ko daanu ko fes wi laal suuf ñu ne Bébé Diène daan kon xam nga ne lu ndaw ñu ne Bébé Diène laal na suuf kooku moom na moo tax ma ne ñaari technique ñaari kele la ci Bébé Diène am. Bakary sànq bu ñaari kele waaw. Baam Ndione day dóor mboot Baam ñoon day def lii day def lii day def lii mais El Hadj Faram dafa am loo xam ne ñun bàyyiwuñ ko ci Baam Ndione nee naa la xoola Baam Ndione bari ko daan yëpp Baam Ndione moo daw attaqué leen. booy xool ko daan ñëpp Baaba Njoon bu ñu niiw mu indi xel mi teg dóor til jàpp ko war a mu ne day xeex par la force daan contre ñu koy wëraloo ci biir géew muy mer fi jóge day guddi foofu lay waxee ndax Bébé Diène suba bu ñëwee di déplacement latéral gauche déplacement latéral droite ndax du yàq li Baaba Njoon ko moom Bébé Diène ci boppam day keroo déglu ma bu leen fàtte nee naa leen Bébé Diène du Papa Sow Bébé Diène du Boy Niang Bébé Diène du keneen ak keneen Bébé Diène dafa am façon wu bëree daa am bëri bu nekk ci moom boo xam na ni tic tak la loolu la xam maanaam ci loolu lañ ko njàggat yàgg a tàggat ci mbappat beeg lépp loolu la am mais lamb ji du lamb wu xaaral ma testé mille technique yëngal ful bi yëkkati waa fas déedéet lamb ñaari technique le su bàyyi xeexee ci kaw ma jëm ci suuf bu jéemee jëw ci suuf ma jëm moom ci kaw loolu kese kon yow yaa war a dicté Bébé Diène moom moo war a dicté Baye Mandione làmb ji nan lay commencé ak nan lay terminé mais bis bu bàyyee ba Baye Mandione dicté ko làmb ji nu muy commencé ak nu muy terminé Bébé Diène day daanu dama la koy wax léegi buy Baye Mandione di dirigé làmb ji Bébé Diène di daanu dama la koy wax léegi. kon Bokar Sakho su ma la déggee mooy Bébé Diène daa war a diriger ci xeex boo xam ne du nekk dëgg boole ko bëre boo xam ne mooy dëgg ci moom. mën naa bëree sax mën naa diriger sax xeex bu nekk dëgg ci moom parce que Alaaji Fadam xeex bu nekk dëgg ci yow ñaari kurfañ mën na koo jeexal touché bëri wala touché touché bëri. mën naa dëggal xeex maanaam ci taxawaayu xeex nit di la menacer ci taxawaay taxaw ci loxoom loolu xeex la loolu menace la menace boobu noonu ci baa baami njoon di mer xëy na ku teel saa waay moom jaar ci falaay tëdd ak moom ci suuf. moo tax ma ne ko ñaari clé la ci am ñaar na ko def pare ci dem yoonam du fu muy taxawee pour wan Sénégalais yi ne moom mooy le moom mooy boss du boos mu ngi soog a commencé lambam mi ngi soog a commencé carrière am lamb ji mooy ouverture carrière li mu jotoon a bëree yëpp dañ koy taxañ sànni ca xaj xam ne bii mooy premier combat wu bébé jéen te ñaari clé lay indi ci làmb ji ñaari yooyu ci lay daanee ba mi te làmb ji warutoo may weesu cinq minutes alaaj fadam kon su ma la déggee Koulibaly Sakho balaa maa dugg ko Baye Mandione Bébé Diène wurta bëreeg Baye Mandione ci combat bu diire. non. billahi bis bu ko defee ci ngay xamee ne nit nit la te gis nga xel du réer ci doomaadama aadama lu tax. Mhm. Baye Mandione dafa bëreeg ay champion yu nekk fii ñu ne. bëri naa fekk ku nekk. gis nga nit ñi xamee ne Baye Mandione bëri na fekk ku nekk ñetti defetu Baye Mandione wala juróomi defetu Baye Mandione ça ne veut pas dire que Baye Mandione du mbër de mhm. waaye Bébé mom ci jëmmé bopam mom mo la gëna xamné ku bëré gri bordo bëré modlo bëré boña bëré ñene bëreeg ñeneen ñëpp loo màggat màggat dese na lay ngelaju té punkol mu taxaw né du daanu pour nga daan ko fofu nga jël initiative mo que ça soit nga nga gëdd ko bëtt ko ma nga ko respect daan ko wala mu daan la ci wala wa ila nga diriger combat bi dé ku ci jëbum ku ci jëbum ya nga dégg li Bakary Sakho développé mais yow niveau bi ngay waxee chaque jour ak niveau bi Bakk Sakho waxee am na benn distance bu ma ci gis tey ma njëkkee yow ci Baye Mandione ko si jabob Baye Mandione tey jii boo jàppoon ci loxo Baye Mandione ci biir géew bi ne ko Bébé Diène mii da nga ko war a juumloo tey Bébé Diène mii da nga ko war a duma muy fayu nga indi li nga mën a Baye Mandione moomu tey nan la war a réagi pour loolu am. dañoo indil ko xeex. xeex direct ak crochet lu comme lu mu la wax faram rek direct ak crochet déplacement direct crochet déplacement. mais déplacement boobu ngay wax coach Diop ndax Baye Mandione li muy déplacé wu ci làmb li ñuy gis ne Baye Mandione saa yi xeex attaque lay gën a def mais def déplacement. waaw mais parce que parce que parce que Baye Mandione comme nu nga ko waxee rek day mer. des fois soo ko mun na mer. Mm-hmm. boobaa day orgueil bi day gaaw orgueil bi day gaaw yi quoi. si boobaa day jaxase lambam lambam jeex na. waaw mais su fekkee dafa concentré wu concentré wu total si combat bi mun na am dara mais su fekkee ne man man maay bébé joon bébé jén waaw bébé jén waaw mu ko dem indi waaw agressé mu agressé bàyyi mu njoon waaw dama koy wax mu agressé bàyyi mu njoon lool loolu nag dinañ ci taxaw dinañ ci taxaw ndax dama dégg Bakary Sakho léegi non xam nga mu ne Bébé Diène daa war a bëreeg Baye Mandione ci cinq minutes. waaw mais yow nga ñëw ne Bébé Diène da war a agressé Baye Mandione lu tax loolu. lu tax loolu. parce que Baye Mandione day day day il mu pour soo soo soo jotee orgueilam day day day jaxas day day jaxasoo su boobaa mun na mun na mun na jaxasoo te Baye Mandione problème bi mooy des fois day am day dafa am manqué équilibre. ragal naa Bébé Diène dafa war a si yooyu. dafa ñëw wara a ñëw agressé ko. xam nga jiwaal ak moom su boobaa mun na fa am quatre appuis su boobaa su boobaa mun na ko wër nombre rek daan ko. Mm-hmm. waaw. mais mais mais mais tey jii tey jii Baama Ndione bu bu demee ba xam ne Bébé Diène mi tey jii dafa bëgg a accélérer combat bi Baama Ndione moomu Bébé Diène ñëw mu ne combat bi day jàpp cinq minutes ndax Baama Ndione bu wax dañ ko dañ ko dañ koy mu def mu xeexee déplacement wala mu xeex arrière wala mu xeex dajeeg Bébé Diène ñett yooyu ban la ci Baama Ndione di def. mu xeex déplacement. Hmm. utiliser directement crochet crochet bi parce que am na direct bu baax ak crochet bi waaw mu lever garde bi tamit mu lever garde bi parce que moo gën a njool lol lol lol loolu loolu ko si jabam. alaaj Fadam. ko su Bakary. mbër muy màmm noo koy agressé. Baba Dione day màmm. waaw Bébé Diène day day ràcc toog suulu. Bébé Diène du jubbe taxaw di bëri. loolu ñun ñëpp xam nañu. xam nga xam nga xam nga pour lan moo wax côté boobu parce que Baye Mandione dafa am problème équilibre. Euh. bés bu ko bébee jën agressé mun na rëpp def quatre appuis loolu maa leen ko wax tey. Hmm? waaw leer laa la wax. léegi daa am benn lien bu fi nekk benn lien lien bi xam nga moom mooy lan arbitre taxaw war a souffler alaaji fa dab. Ah, nee bu arbit taxaw war a siffler bébé jëndu ne jot taxaw ci kaw tànk yi day toog ci hanche wàcc talal loxoom xaar arbit siffler bu arbit siffler bébé jëndu ne bëre takk ci kaw baaba ñoon mais man gëm naa ne baaba ñoon mën na ne bëre takk ci kaw ki nga xam ne mooy bébé jën lamb ji nii bébé jën du agresseur du agresseuru lamb déedéet bu doon loolu moo gàtt mujjee bëre jeex na bu yàgg parce que amoon na mais mais yéen ko digal loolu mu agressé non man man digaluma ko mu agressé de. man dama koy digal man dama koy digal mu ah. agressé. bàyyi ma xam nga la laa digal boobu ji. waaw li ma ko digal dafa leer nañ dama koy répété waat nee naa ko. Mhm. làmb dañ koy diriger. bu mu bàyyi bàyyi doon diriger ko. Mhm. làmb dañ koy diriger. te bu mu bàyyi bàyyi ma ñu doon ko ci làmb ji bébé jiin moo war a moom làmb ji ne làmb ji sama làmb la maa koy diriger. diriger làmb nag do agresser mbeur mën nga taxaw fi nga taxaw ni mbeur kay mbeur mi ñëw wuti la motax mané la mbeur muy mam ak mbeur muy xaddi waxuma am ñepp dañaan baabi ñon day mer mer amul benn combat boy gis baabi ñon mer di xex amut hmm. xaddi dafa am xaddi ñun daf ñuy dal kat lepp lay dal manam su waji nak xoro fim fi l'affaire yam quoi que ça soit ma daan wala mu daan ma meruma de mais <laughs> waaj damaa doyal jeex na kaay baa mu ñoon tig boobu lay indaale saa su ne bu ñëwee làmb après dootul calculer ti noo taxawee ci géew bi dootul calculer ti ndax sa garde jug na wala jugut lépp lu muy calculer moom mi ngi xool lan la war a def waaye xamut lan mooy retour am kookoy baame njoon waaye bébé jéen tamit nañu wax moom mooy kan alaaji Fadam ba pare parce que bébé jéen ku ko xam ku ne xam mën a bëreem xam fi mu bëgg a dem ci làmb dëgg waaye Bébé Diène du mbër muy agressé te digaluma ko mu agressé. maa ngi jaar alaaji Fadam. ma waaye dugal damaa xaw a yaram xaw a ngi seetaan quoi maa ngi nuyu coach Diabo ak coach Bakary. jeex kon Bébé Diène digaluma ko mu agressé Babi Ndione waaye digal naa ko mu contrôler Babi Ndione ci làmb ji ba mu jeex tàkk yaay contrôler yaa naan Babi Ndione ok fii bëgg naa nga dóor ma soo ma dóoree mu jiwóol ak yow daan la ah Babi Ndione fii bëgg naa nga déplacé wu gauche Bébé moo koy orienté ci ci yaramam loolu science de sport lañ koy woowee faw nit ki xam ko imprégné wu ci sa xel mi nga liggéey ci te nag bu ñuy ñaan victoire ak yooyu yëpp man personnellement damay waxaat saa ne bu ma dee analyser ci sport ci sport lay wax moo xam muy safaanu Bébé Diène rek avantage bu Bébé mais làmb da koo soxla léegi nag bu la làmb soxlaa ci biir réew mi te say ah, morom ne ci kaw. nga daan daj ak ñoom ci mbapat. Mhm. yow yaa war a nekk yaa war a contrôler yow yaa war a def lépp ci biir làmb ji. Mhm. amul dara mais kenn agressé wu nag. baa ma ñoon képp ku koy daw naan yaa yaa ngi koy agressé jàppal ni mën na laa dóor nga rot waaw hmm? barke yaa ngi nuyu balaa ñoo ñëw ci gëstu beneen continué waa ji dugg gëstu jamono ñu ngi ñëw ci yow. Ah, euh, ñii seetaan ci YouTube bi ñii seetaan ci bi ñu ngi commentaire seen waxtaan wi ngeen di waxtaan bu leen fàttee abonné mais man lii suñu soxla tey jii lii suñu soxla mooy combat bi dafa am solo ci carrière u Baye Mandione waaye xale bii di jóg nekk révélation di ki nga xam ne ni tey jii mooy Bébé Diène nekk avenir u làmb waa Medina yaakaar ko mu nekk xale boo xam ne ni tey jii Sénégal gépp ñu koy xaar mu nekk ndaanaan nekk mbër moo xam ne ni bu jugee Medina jóg ñëpp jóg. tey jii ko su tey jii boo amoon lay wax dégg nga li ko su Jobam wax dégg nga li ko su Bakary Sakho wax.